Eh. moom barki Serigne Bamba dama yàq ASC eh, man daa mel ne bu ma ngootoo laay gën a ñaaw sax barki allah ji fàll maa ngi mel ne garabu koko yooyu wala eh, lii tamit lii wax dëgg yàlla wala man ki may wat moo mënta wat man maa ñaaw wala li may doog a yeewoo tax oh, waaye gars yi man daal damay découragé wu ci àll def naa ko jéem na maa dugg naa man daal moom def naa lox waaj woo gi ah, na xaaral ma ba xam ah, lii de moom nag man xamatuma ci pexe de barke Alaaji Fàllu